bi tey ci bi bi ñi ñi ci bi Passine mooy magu ndakaaru yi gannaaw bu ñuy dajeeg waa Koskas maam Ousmane Samb jiite leen ànd ñoom El Hadj Babacar Kébé ñëw waxtaan ndakaaru ñu waxtaanee ko ci grande mosquée Dakar ñu ñëw fii ànd ak imam bu ndakaaru Aliou Moussa Samb ji réewu ndakaaru bi Diagne ànd ak grand jaraaf Dakar El Hadj Ibrahima Faye ànd ak ndey jàmbur Badou ak ak chef de penc yi ak jàmbur yi ak ñi nga xam ñi ngi jóge Tëngéej ñi jóge Yeen ñi jóge Bargny ñi jóge Yoof ba mbi jëm ñëpp a ñëw liñ ci nam mooy ni nga xam ne noonu lay doxee ñu sukkandiku ci pour yeesal suñu diggante ak Tiwaawan ni nga xam ne suñu maam yi noonu lañ ko daan defe ndax ñëpp xam nañu ne maam Alaaji Maalik ci ñi nga xam ne ñoo dugal Lebu yi ci tarixa Tijaan ci moom la sosoo zawiya ba nga xam ne mu nga sampu ndakaaru ci ëttu kilifay ndakaaru la muy màmbay Mbaye foofu la nekkoon ay penc yu mag nag ci at yi ñuy génn at mu jot bu gàmmu masaan am dañ daan togge ndakaaru andi loolu dafa mel ni lu xeewi naam dañuy gàmmu si ku nekk ànd ak sa waa kër wante bi yoon dañu wax ne ndakaaru ak ñi ko ŋànk ak ni mu toll ñooy ñëw dajeeg sëriñ Abdoul Aziz Al Amin yóbbante ko ci xalif général bi ndegam baat bi jekk na mu xam ne waa ndakaar ñu fas yéene bu ñu fi jógee na maam ya daan def di ngénte gàmmu gàmmu Tiwaawan naam ñu seet ak moom nu mu ko bëggee rek ñu def ko pour ñu tam taxawaat ci tarix bi fii loolu mu ñuy walla suñ ñu leen di gërëm leen si merci jërëjëf saa